siyaar si di ko ndokkeel tey ñaan yàlla eh, suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naal liggéeyal ko sëñ Maam Mor Jaara suñu borom dafa ko lu taw lu kawe njortam barke Cheikh Khadim di nuyu mboolem mbokk taal bi nga xam ne ñëw fi teew ñëpp sëñ bi dañoo ñëwoon doon am lu doon leeral ci liggéey bi nga xam ne liggéey Serigne Touba la. liggéey Sëñ Tuubaa boo xam ne yàlla mi dogal dafa dogaloon Sëñ Fàllu nekkoon Gabon ànd ak mbokki taalib yi ma àndal nii toog ñu doon liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéey boobu nag ñu dem ba ci mu jëm sëriñ bi wax ne fas na ma yéene fondumal Sëriñ Tuubaa loo xam ne bu liggéey lépp lu ñu bëgg liggéey teg ko ca kawam daldi wut benn ONG boo xam ne état bu Gabon bi nangul na ko ko ba récépissé bi génn loolu nag defu ko ngir boppam def ko ngir njabootam waaye jumtukaay la rekk pour liggéeyal Serigne Touba ngir kër yooyu fu waaye mën di nekk ci àdduna bi mën caa sukkandiku mën na ñëw Gabon dem Mayomba dem Lambaréné mboolem Serigne Touba fu mu jaaroon. danga ko mën a xeeñcu danga ko mën a dundal na mu war a dundee te du am benn jafe-jafe ma amoon nag ay naal yoo xam ne foofu ca mayom ba jumaa ak daaray soxna jaara ak kër Sëriñ goo xam ne day jàngale diine waaye itam day jàngal itam mbooleem ña fa nekk ñu gën a xam sëriñ bi yàlla dogal li ñëw ci Sëriñ Sidi Muxtaar waxoon ko ko mu amoon ci ndigal lool bi mu sottee yàlla dogal nag bi nga xamee ne sax wutoon doon wut suuf ba tolloon ci ministre bi nga xam ne joxoon na ko ma rendez-vous mardi ci lundi bi la sëñ bi nelaw kon yooyu yëpp ay jéego la woon yoo xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek moo ci dugaloon ànd koo mbokk taalib yi ma tudd léegi nii sëñ Seex Mbeng mi ngi nii toog di jëwrin yóbbaale na ñëpp ak a Alaaji Lo nii bi sëñ bi yàlla def mu daal di wàcc liggéey ñu ñëwoon ci sëñ Muntaxa leeral ko liggéey bi ak tolluwaay bi mun ñaan ci joxe ci ndigal ñu mën a continuer liggéey boobu ba carte membre bi nga xam ne moom lañ ci njëkk a dagg bi ñëwee leeral ko liggéey bi ngir mu xam liggéey Sëñ tubaa ak cofeel gi mu am ci sëriñ bi ak naal yooyu ñuy wutoon ci Mayomba moo dagg carte membre wi jiitu ci loxal boppam wax ne ni ngeen ko wéyal da ci am ndam incha allah sëñ Mountakha nag joxe woon ci ndigal ñu yaatal ko ñu doon ñëw nag ci mboolem bopp kër yi leeral leen liggéey bi ak ndigal li mu Mountakha joxe di sàkku seeni ñaan di sàkku itam soññi mboolem mbokk taalibe yi nga xam ne eh, ñu aju ci kër gi ñu mën a euh, jàpp ci liggéey bi nga xam ne du liggéeyu kenn ku dul liggéey Sëriñ Tubaa ndax Sëriñ Tubaa foofa ca Mayumba am na fa juróomi at sonn fa lool daj fa lu metti ba musaana samp ay bantam dañ koy buddi di ko sànni ba commanda bi di buddi di sànni ngir lan bëgg rek loolu du fa mën a sax waaye ci biir loolu mu ñaan suñ borom subhaanahu wa mu may ko jumaa ju yaatu suñ borom nangul ko ko wan ko ko ba jumaa yooyu yaakaar naa ne fi mu toll nii ay junni junni junni la kon nag ñu bëgg nag foofee mu ko ñaane woon ñu sampal ko fa jumaa joo xam ne fu waay toll dana seen xam ne lii sëñ Tuubaa fii mu nekkoon lii mooy symbole bi nga xam ne lii mooy jumaa ji nga xam ne léegi moo wutu bantam yooyu fa sampoon loolu nag mbakke moo doon euh, li ma doon bëgg doon leeralal li ci des sax suñu seex mbéng mi dana ci ñëw gën laa leeral bu baax. bisimilah rahmaani rahiim laa xawla wala xuwwata illaa billaahil aziim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi euh, yi teewlu jataay bi ak mbokki taalibe yépp ñëw nañ fii ci jataay boo xam ni euh, ginnaaw bu ñu bawoo ci. sëñ Mourtada sëñ Mountakha Mbacké di xalifatu am fii tarixatil Mouridiya bawoo Gabon ñëw ci liggéey bu màgg bu ñuy defal sëriñ Touba foofee muy ndigal lu fedd ko feddlu ko fi moom mooy barab yi nga xam ne ci leen doon yóbbu sëñ bi ci liggéeyam bu màgg boobu ci Gabon euh, jéego yoo xam ni doon nañ ko ca dox ngir ay suuf ci dëkk boo xam ne sëñ bi jaaroon na fa bu ne ngir ñu def ay mandarga yoo xam ne ba ba àddina tukki ku fa dem gis ko muy ndamul sëriñ Touba euh, yàlla dogal bi ñu demee sëñ Muntaxa mu ñaan ci xam ne ni dañ ci daje ak ay ndam jox ndigal sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo yore doom mu jottali déclaration boobu ba mu yaatu ñu ñëw nag tey jii ci jataayub sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Ismaïla mii nga xam ni moo fi toog jataay sëñ maam Mor boroom Saam mu mel ni euh, bu dee ni bu dee ni kuy dàkk rek jaare nañ ci bunt bi ndax buntu maam Mor Borom Saam moom kenn ku ne xam na la mu doon ci liggéeyub sëñ bii euh, se sëñ seex mii nga xam ne nag moom lañ fekk si yàlla dogal na xañ na jataay yi bariwut waaye sëñ maam Mor mi nga xam ne mooy rakkam moom danoo bokkoon nekk ak moom gamoon ci ay at yu baree baree bari kon mel na ni. loole sëñ Mamor nekke woon foofu te mooy suuxat liggéeyu maamam bi rek man mii daanaka ñoo sosoon ay kër ci at yu bari ca Libreville Gabon kon tey su yàlla di def ba liggéey bu màgg bii di ñëw fii ñu ñëw toog ci jataayam bi euh, mel na ni kon sëñ Mamor it loolee mu ànde woon ak sëñ fal Fall Bousso euh, di ko di ko jàppale ne fi wetam ci ndigalu sëñ Mourtada Mbacke kon tey jii loolu wamatu na ba ñëw tey jii ci sa jataay bi bëgg-bëgg bi nga xam ne nag sëñ Fall Bousso am na ko moom ku réyoon euh, xalaat bu sori la ndax président Omar Bongo moom moo yeewu benn bis jël ñaar téeméeri nationalité jox ko ko ni ko dama bëgg ñii nga tànn ay murit may leen ay nationalité ngir ñu man fee suuxat liggéeyab sëñ Touba ndax man ka saxuma fi ëllëg ak si biir mën naa fee jóge te la fiy ñëw du ngeen xam lu mu doon te man dafa wax ci baatu tubaab ni je suis un murit de cœur murit laa boo xam sama bi sëñ Touba laa ko jox loolu la président Omar Bongo wax. ne ko nag damaa bëgg kon ñu suuxat fi ak murit ñu ni ko waaw suuxat fi ak murit loo ci jublu mu ni ndax murit seetlu naa ci ñoom ñetti yëf xam nga président Omar Bongo 1971 ñëw na fii jël si fi ay ouvrier yóbbu leen ñi njëkk a dem Gabon ay ouvrier la ñoo xam ne ñu doon liggéey la mu ni gis naa ci ñoom nangoo liggéey gis naa ci ñoom jub ak nangoo jaamu yàlla waaye li ma gën a soxal ci ñoom mooy ñu am genn kilifa lañ kon nag nangu gañ nangu kilifteef looloo tax bu ma sañoon gabonais yi nga xam ñoo ne ci réew mi tamit loolu ñu suuxat ko ci seen biir man mii bokk nañ ñi nga xam ni bi mu joxee sëñ Fall Bousso nationalité yooyu ci lañ amee nationalité gabonais sëñ Alaaji Lo mii dend ak man it ñoo bokk benn décret bu ñu may nationalité gabone bu ko defee loolee nag ba mu amee mu ni ko nag bu leen ko def ay quatre séjours mel ni kuy wut kayit bu ngeen mën a nekk ci réew mi ci jàmm def leen ko jumtuwaay yu ngeen di liggéeyal sëñ Touba. loolu moo sabab sëñ bi wut kayitu ONG boo xam ne bu waa Touba gépp bëggoon xëy màggalee ndoo duñ dem ci ambassade di wut visa foofa la ñuy binde rek benn liste rek wane ni ñii ñoo bëgg a ñëw rek ñooñu bu ñu accès ba aéroport ñu kaase seen i seen tampon ndax ñoom dañ ni fu ne ña ngi fay wooteel sañ Touba bis ci àddina waaye Gabon rek moom moom la war a njëkkee ginnaaw Touba ndax Gabon la sëñ bi doon liggéey loolu nag nii ko sëñ Seexuna waxee rek ni la amee maanaam njiitu réew mi fa nekk am na juróomi at fii Sénégal muy muy président de la république ba doonoon attaché militaire waaye bi mu toogee jël réew mi moom jarbaatub Omar Bongo moomee defaloon yoonu murit loolu la bi mu jëlee réew mi daa daal di jël si ambassadeur bi nekkoon fii nga xam ni euh, Régis Onangal tudd waaye Mamadou Ndiaye ndax ay maamam ca ña jamono teg sëñ Tuubaa ca ca jamono la woon moom moom am na moom it am na fukki at ak juróom-benn fii ci Sénégal moom la jël def ko ministre des affaires moom la sëñ Seexuna di wax ni sëñ Muntaxa berndeel na ko fii jox ko ay teraanga mu matul ñeenti weer moom ci la doon ministre affaires étrangères u Gabon loolu nag su fekkee ni suuxatu na ba tey jii suuf ya ne woon ca Gabon tañ doon ko aajowoo ci làmbar nag maayomba barab yi nga xam ne tumuraankel sëñ bi doo nga taxaw ñu jël ko foofee bu fa defee ay soora def fa daara jànguwaay yoo xam ne soxna jaara lañ ko tudde loolu yaakaar naa ni kon la tax la sabab ba taxoon tubaab bi yóbbu fa sëñ bi ñoom seenub sabab kon sababu sëñ bi moo sax ndax sababu xaybati an allaha arada an analu min uja wan akun shafi an li xaw mi waaye waa nakkoonu xaadiman fi daw mi marta moom xaadim rasul ci àddina foo bindub leeta sànni ko fa sëñ Tuubaa rek lañ koy yot waaye liggéey ba mu doon liggéey ndam la mooy taxaw maa yomb ba seen ay sooroor ndegam ñaari guddi ndakaaru moonu mën a may jumaay Masaalikul Jinaan yaakaar naa ne juróomi ati baxru maa yomba yoo xam ne ci maa yomb mi ngi ko nekk ci biir maa yomba dex gi war ko fépp ak géej gi ci tumuranke kenn du ko dañ ne nañ ko tubaab bi dañoo àgg sax ni nañ ko bu ko kenn duwel ak satalaam satala rek gu mu jàppe rek bu ko kenn duyal nga xam ni loolu jàppante nañ ci ak kuñ naan Sidi Mabo mun leen man far luñ ma fayati ci sama weer sax moom man Bàmba koy jox kon tey jii ndam lii nga xam ne nag njiitum réew ma euh, mi président euh, ministre des affaires étrangères bi àgg na ci ni ko kafek Touba sax ma lañ ko war a bayee kon jox leen leen kër yi sëñ Touba waaye jox leen leen suuf suñ ko baye kon yaakaar naa ni bu yàlla dogalee tey jii jataay bi ñu ñëw fekk fi ah, euh, sëñ Moustapha Imam di xalifab sëñ Abdou Xafoor moom maam Mor Borom Saam tañ xamoon ko ci liggéey xam ko ci mbay nag daa mel ni bu ñu tuddee kafe gi sax kafe Tuubaa ñu war a béyee ji maayom ba daa mel ni euh, loolu ñoom xam guñ xam ne murid yi ay liggéeykat lañ moo tax ñu wax ko ñu ngi nuyu mbokk jullit yi bi ci sunu xalifa bi sëriñ sëriñ Seex Mbàkke di nuyu nag sunu gani tey yi nga xam ne lii ñu bëggal fële ci sëñ Tuubaa moom ñu xam ñu xamul nun taalibe yëpp rafetlu nañ ko ndax foofee kat fa la sëñ ba sonne woon juróomi at yoo xam ne yi ker genn keru garab la fa nekkoon foofee nag kon yéen ñii bu leen yàlla ak sëñ Tuubaa baaxee ba euh, yu bunt boobu mu feeñ ci yéen yéen daal moom dañuy sëñ Tuubaa dana leen jàppale moom faw dana leen jàppale te loola itam liggéeyu nun sunu nun taalibe yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp liggéey la foofa moom luñ fa def rek moog luñ def Tuubaa ñooyam kon nag noo ngi ñaan nag sëñ Cheikh mii nga xam ne yàlla dogal na mook sëñ euh, mook sëriñ mook sëriñ Seexuna ak ak sëñ Cheikh Mbengue Ba Baye Fall ak sëñ Lo mi nga xam ne yàlla yàlla ak sëñ Tuubaa baaxe na leen ba lii feeñ ci seeni loxo yàlla na leen ci yàlla ak sëñ Tuubaa defal ndam ndam yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci lam dugg yàlla na lépp ak dëggal sëñ nag dafa jafe lool nag ndax boo ci nekkee lu ne da nga dégg waaye sëñ Tuubaa yi defar lépp kon nag yàlla nañ ko tàmbali ci bisimilah mu àgg ci alhamdulilah barke sëriñ Tuubaa man de mboolem koo xam ne am naa ko nekk na Gabon te sama taalibe daal joxoon naa la ndigal nga ànd ceeg ñoom ba jeex bu dee waxuma Gabon sax fu fu fu ma yaakaar ku yaakaar sëñ Abdou Khafour rek te nekk ci réew mépp mépp mépp mépp na nga xam ne loolu la géyal sëñ Touba la ñoo ko bokk kon nag jërëjëf yàlla lépp àgg wax dëgg yàlla taxawaayam mm-hmm. ñëpp war nañ koo ñaanal mm-hmm. ndax njëriñul ñëpp mm-hmm. gannaaw mu ngi ko ñaanalee it mm-hmm. di ñaanal jullit yi ak taaliba yëpp di ñaanal mboolem njabootu sëñ Mor Jaara gépp ki ci ki ci ci teew tey te gën fee jege fii ne tey muy sëñ Moustapha Mbacke mi tey kon yeneen ngeen ne foofee nekkal fa sëñ tubaa di dox ci di ci dox jéego yi ngeen ciy dox ba bunt yi yëpp suñu borom ubbi ko ci li ni ko ni ko ñëpp yi waxee nag rek noonu la amee mooy sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ndax ginnaaw lii ngeen wax foofee mm. ak nam meloon mm. ak nam ñànge mm-hmm. te ab murit newu fa mm. bu fa cosaanoo ñuy ñuy ñu lijjanti li lijjanti lijjanti bu suuf soosee sëriñ Tuubaa newoon mm-hmm. ñu war ko lijjanti muy suufu sëriñ Tuubaa ñu war faa taxawal jumaa taxawal fa daare a jaar eh, loolu moom defe naa ne <laughs> yàlla ko yàlla sotta rek doon leen ci may ndam rafet nañ ko bu baax bég nañ ci bu baax kon nag ñu ngi ñaan daal jeex ak yéen a ji yàlla suñ tubaa sottal ko te may nu ci ndam ci barke borom tubaa bokk ñu ngi leen nuyu sëñ seex naa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci projet bi ngeen xam ne andil ngeen ko sëñ bi muy projet murid yëpp ñu ngi ñaan ci suñu borom tabaaraka wa taala ak ci barke Mamour Diop ak Xaadim Rasul suñu borom tàmbale ko ci bismillaahi rahmaani rahiim ngeen àggal ko alhamdulilah rabbil aalamiin suñu def leen ci ndam kaw seen njort ñoo ngi ñaan daal yal na ko suñu borom nangu liggéey bi yal na ko suñu borom nangu yal na ko Xaadimu Rasuul nangu yal na ko Maam Mor Jaara nangu ñu ngi ci sant di leen gërëm bu baax jërë ngeen jëf